<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gaa yi bëggati les ziar leen joxat leen seen wàccuwaay naka réew mi mbaa mi ngi corox coroxi talax-lax réew mi ak rakkam-rakkam ji encore une fois ci laay waslu ak gars yi ci wa jaahiran ak wa baati man ku kurise yaa xam dama ne naka sunu gouvernement naka sunu ministre <laughs> barke yow mul jël basar dama ne eh, ana ñu doon naan Baye Sonko daa am problème ak Baye Diomaye Faye pour def li nga xamante ne pour taxawal li nga xamante ne moo di gouvernement bi non sénégalais non sénégalais sénégalais non gis nga réew mi lëfa ngi fi non ñun wax rek ñun wax rek Ousmane Sonko euh, wax dëgg yàlla gouvernement bu mel nii ci histoire u Sénégal mi ngi doog a am Ousmane Sonko euh, néew ma li mu diggee woon ak sénégalais yi mat na de waaye mi ngi ci yoon wi de barke yow mal xuloo jël basar mi ngi ci yoon wi Ousmane Sonko non <laughs> gouvernement bi dama gouvernement bi ko gouvernement. xam nga parfois dañuy jël exemple ministre de de l'élevage fal ko à part ba paré fal ministre de l'agriculture. xam nga loolu benn poste la boo xamante ni barki yow bu ñu xuloo jël basar benn poste la ministre de l'élevage ak ministre de l'agriculture benn poste la ndax xanaa ku yor saw nag di nga ko jox am ngooñ maanaam benn poste la mais bàyyi àll <laughs> ministre de l'élevage ministre de l'agriculture ministre de Pochin ministre de nen ministre de donc lépp doon benn poste mu mu séddale ko ay nit ministres yi doon ay 300 nangam ministre wala wala 100 <laughs> léegi nag gis ngeen bàyyi Sonko fi mu ko yemale fim mu yemale yëf yi Sénégal li dafa bokk ci économique avant tout li dafa bokk ci économique parce que ministre du ndaw ministre bu nek lamiy fayeko ministre bu nek otoom ak bon gaz walam wala essence lolou ñaata milliards la ah mois bi wala année bi waye gis nga Baye sonk bu ñew dafa résumer benn ministre bu ci nekk mu yan la ba nga dis gànn parce que benn ministre bu nekk mënoo doon ministre de l' ah ñu bëgg a jël ministre de l' jox ko keneen da ngay doon ministre de l' agriculture yor ministre de l' mën naa nekk parce que benn poste la sorewuñ kon yëf yaa ngi noonu mi ngi noonu waaye nag gars yi na ngeen dafa koon ne bi ngeen déggee jëf yi Alioune Sall <laughs> bay <laughs> Alioune Sall mii démb xaw ngaa yóbbu fit yu bari man de bu ma déggee Alioune Sall damaa daal di rangale samay bagage sama buumu tamayee bàyyi <laughs> ndekete waaye mënul ne Alioune Sall mi war ñoo jox 600 milliards 400 400 ñu ñu koy dugal sunu gouvernement loolu yéem ma ma ne noo lii mënul nekk lii mënul nekk parce que Alioune Sall men non ci laa toppaate enquête ma ne poursuivre enquête parce que nag tëb tëb gaaw baaxul. démb simila ak le résultat yi génn na gars ku ñi def ay vidéo du noonu gis nga mbir bu da ngay les situations pour booy information nga information yi leer légal moo gën a wóor bu actualité am rek ñuy profité di def ay di wax lu ñu xamul gis ngeen Ousmane Sonko ni mu résumé gouvernement bi macha allah koroñolle na beneen bi ci topp gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo porté woon ci combat bi nekk ci campagne yi nekk ci lépp gis nañ ni ñi ci nekk ci biir gouvernement bi da nga leen di compter man comme tànn ci ceeb lan moo tax loolu gars yi dama leen koo bëgg a xamal tey Ousmane Sonko nee woon na leen réew mi doonu loo xamante ni gâteau d'anniversaire la dañ koy séddoo ku càpp daal ni joyeux anniversaire happy birthday hu loolu bàyyi bàyyi Ousmane du koo dàq nee na réew mi dañoo toll ci liggéey benn instant ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci komba bi di xeex te yàlla def ñu nommé gouvernement bi ku nekk jox la sa poste ñu bari ñoo xam ne ñi ngi woon ci combat bi di xeex joxuñu leen poste doonuñu dara ci gouvernement bi ministre yi doonuñu ci dara mais ci ginnaaw dara lañ ci ñooñu wax dëgg yàlla ba tey ñi ngi liggéey ak Ousmane Sonko ba tey ñi ngi jopp ak Ousmane Sonko seulement dañ ay ministre peut-être duñ ministre joxuñu la benn poste mais nag am na lu ñu occupé am na lu ñuy jariñ ci biir gouvernement bii di gouvernement Ousmane Sonko mu sell mi moo tax coow day bari wax metti waaye xoolal doo dégg kenn ci ñoom génn mer wala muy wax lenn du am parce que ñoom ñëpp ñoo toog waxtaan déggoo ci li nga xamante ni moom la ñu def gars yi bref yi noonu la demee Sénégal barke yow ma xuloo jël basar day leer Ousmane Sonko du seen moroom ci politique ndox mu sedd muy rey teeñ la xoolal ma ko ndawaay beeg tuutiwaay bi di wax di leb lebbal bàyyi ba siru génn di ñii déedéet du foofu amuñu benn problème amuñu problème biir pare la nekk di poobar seen i nen di lakk seen i diikun di noos waaw di lekk naan seen ndox mu sedd teg seen ay dossier di ko traité chaque homme à la place qu'il faut point amul virgule bref gars yi talax lax rew meeg rakam rakam ji ci lay waslu ak man xeri pro setup kocc bi gaay dama bëgg ñu talax yi dem ci ben histoire bo xamanteni suma jumul duré na euh, bientôt def na en tout cas plus de 40 ans wala mu yam ci bientôt def na gars en tout cas plus de 40 ans wala mu yam ci muy ban histoire muy MFDC ñi nga xamni ñoy wa. euh, Casamance maanaam benn parti la peut-être wala benn euh, euh, euh, coalition la wala benn force la boo xam ni ñoom Casamance yàgg nañoo réclamer li nga xamante ni mooy seen ak ak seen yelleef ak ak yelleef nag bu ma ko waxee dama naan dayet ci indépendance xëy na moom la ñu bëgg doon na loo xam ni mën naa yomb mën naa bañ yomb waaye loolu wax dëgg yàlla man xëri satub Kocc bi tuuti naa wax dëgg yàlla ti wax la ca waaye juste pour ñëw indi leen ay quelques leeral FDC ñoom démb dañu def benn déclaration war a bërki démb attaqué ki nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Faye am ay sénégalais yu bari yoo xam ni xëy na yëg nañ ko yëguñu ko dese na maa leer waaye man a xërisatub kocc bi du ma nit la waaye lu ma yëg mu siiw ba tax na am ay ñenn sénégalais yoo xam ne dañu contrôle Ousmane Sonko démb ak bërki démb tey ñooñu noonu ñooy dooleel MFDC wala seen kàddu yooyu ñu yëkkati di menacé ki nga xam ni mooy Bassirou Diomaye Faye gars yi dama bëgg ñu traité déglu gars yi dëgg yàlla nga xam ni moo di euh, euh, njiitu peut peut wala ben ci euh, soldat yi nga xamni ne ñoo nekk foofee ci MSDC gën yëkëti nañ ay cadeau euh, jégleel ko ki nga xamni modi Bassirou Diomay Diakhar Fay Gaay dama bëgg gaay euh, ñu dem déglu ji loolu daal di ñëwaat ma tek leen ci li nga xamni modi moo di yoonu siraatal xudaa wax leen li nga xamanteni mo ca xew ndax néwon na leen mën xëri sëtu kocc bi duma ma nittali waaye lu ma mu siiw eh, Diomaye je le félicite d'avance d'avoir pris le trône sénégalais Moi, je le souhaite, n'est-ce pas, euh, une exaltante mission, mais qu'il sache que ce dossier Casamance l'attend. Parce que dans ces deux discours-là, il n'en a même pas fait cas. Peut-être que ce n'est plus une priorité pour eux. Ah, ben alors, on verra bien, puisque une crise qui est là, qui demeure toujours. Vous essayez de faire les oubliettes, d'ignorer. Et c'est ça la résolution de cette crise. Nous interpellons ce nouveau-né, celui-là qui est Jamaï, au nom du MFDC, eh bien de prendre ses responsabilités, parce que nous l'attendons. Nous l'attendons. Peut-être que lui au moins

moy wa MFDC bismillah ñeneen sen frère nan la mëna jakarlo ay fréram wara mëna jak xex ñom ay aromam tay mom mu ngi taxaw mu ni su fekkante ne ñom régler wuñ crise bobu Sénégal du am jam. lolu moko wax directement ñepp dégg Sénégal du am jam. gis nga bu ngeen joggé di di di dal ci ay général Moussa Fall da ngeen xamul vous ne vous ne connaissez pas ce qui se passe réellement

maanaam ñi nga xam ni ñoo di suñu général yi lim na ay général yoo xam ni wax dëgg yàlla fan yee bi réew mi tàngee wax dëgg yàlla euh, euh, seeni acte xaw naa doy waar ci euh, population bi waaye gars yi man loolu ñoruma li ma ñor mooy nee na Bassirou Diomaye Diakhar Faye il n'a qu'à prendre ses responsabilités maanaam jël ay responsabilités am ci li nga xam ni moom la waa MFDC wax li ma leen bëgg a xamal yéen askanu Sénégal ñi nga xamante ni xëy na parfois yenn doomu aadama yi dañ leen réeral duñu leen wax li nga xamante ni moo nekk gars yi kon nag damay ñëw résumé résumé bu gàtt rek MFDC amul benn gouvernement bu bees bu mas a taxaw fii sunum réew Sénégal te MFDC deful déclaration wala ñu def alerte wala ñu def ay menaces am li ko dalee ci Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ñoom MFDC gouvernement bu ñëw bees foo jaar ñu def vidéo wala ñu def déclaration wax li nga xamante ni moo leen metti wax ak gouvernement bees bi nga xamante ni moo fi nekk pour mu mën a jublu ci ñoom bref gars yi euh, man la xëri satub kocc bi dëgg du rombi nopp ndem mën naa ne kàddu yi MFDC nag euh, wax dëgg yàlla doon na ay kàddu yoo xam ni euh, doy na waar waaye loolee ba Ousmane Sonko Sénégal ban ko ca laajee ni ko sax xalaat ci MFDC ban xalaat nga ci am te am na sax ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi naan yow sa bopp Ousmane Sonko MFDC nga bokk lii la leen tontu. waaye le premier homme politique casamance boo xam ne. Hmm. mënuñu fexe ba dugal ci bopp benn sénégalais ni Ousmane Sonko MFDC la bokk. <laughs> ni Ousmane Sonko MFDC la bokk gars yi yéen a ko déggandoo waaye ba tey damay talax-laxi rakkam-rakkam yi ndax journaliste bi foofu dafa insister ni ko Ousmane Sonko yow sa bopp boo yoroon réew mi tey ban xalaat nga am ci li nga xam ni moo di Casamance mais Ousmane Sonko lii la leen wax. suñu daggitu réew yi ñu ñu daggal tubaab yi daggal ñu ko foog nga ni Sénégal Gambie euh, euh, tu ne peux faire de grand avec ay daggitu dëkk yooyu. man li ma gëm mooy dañu war a fexe ba li fi maam maam bàyyi woon ñu yaatal ko mooy tey espace CEDEAO benn réew la waroon doon du lu yomb nag néew ma tey tey lay doon. Hmm. ndax am na préalable yu bëri yoo xam ne suñ ko deful. kenn ku ne tok fi nga tok mo gën. deg ngeen li nga xam Ousmane Sonko mom la tontu waye Ousmane Sonko ba mu waxee kàddu yi ñen ci wa MFDC wax deug yalla neexu len Ousmane Sonko kaddu yi mu wax ni bu sañon mom ci bopam Afrique benn pays lay doon doonul lu yomb waye nak wax deug yalla bu ñu jaayantee ñun ñep ñu deggo Afrique yep man na doon benn rew kon dekk yi nga xamantene wala secteur yi nga xamantene koy dag dagge bëgg ko ku neñ jox la sa indépendance loolu Ousmane Sonko da ko ñaawlu kaddu yoy bam ko yëkëté ñen ci wa MFDC je ne suis pas d'accord de la position d'Ousmane Sonko Ousmane Sonko ce qu'il devait dire qui demande à Macky de monter les conditions avant 2024 que la table de négociation soit installée y a ko déggandoo MFDC la table de négociation sera installée maanaam ñoom chaque jour euh, gouvernement bees bu ñëw da ngay ñëw quelques négociations alerte parce que bu leen fàtte ni euh, Casamance euh, ñoom seen bopp ñoom nee dañu taxaw wax ni Casamance bokkul ci Sénégal sénégalais ni Casamance ci Sénégal la bokk histoire dafa sama kon bref yi si je peux citer Abbé Kounsengo qui disait Abbé Diamankoune Senghor gars yi moo yëkkati woon kàddu yooyu ni carrément euh, Casamance dafa am indépendance su boppam kon ñi nga xamante ni dañoo seen làmmiñ te xamuñu ni kaa bi demee di wax ñu naan MFDC dafa day menacé Bassirou Diomaye Faye yéen a ngi nax seen bopp MFDC menacé wul Bassirou Diomaye Faye MSDC lii mu def du lu bees ci ñoom amul benn gouvernement bu ma sa taxaw fii sunum réew Sénégal te MFDC yëkk defuñu euh, euh, vidéo wala ñu woo presse bi waxtaan ak ñoom. seen presse yi foofu Casamance kon gars yi bu kenn bu leen kenn lëndëmal bu kenn jaxase seenum xel bu leen kenn jaaxal ci dara amul benn rebelle wala benn doomu aadama bu jóg ni daa mënaase Bassirou Diomaye fay nii ñu ko defee nii lan nii lan ko daan defee MFDC ñi ngi may seetaan xam na li may wax nii ñu koy defee nii lañ ko daan defee gouvernement bu bees bu ñëw dan la naan carrément jëlal say responsabilité ci Sénégal bu dul loolu réew mi du am jàmm nii lañ ko waxee Senghor wax ko du Diouf wax ko Abdoulaye Wade wax ko Macky sàll kon tey bu Bassirou Diomaye Faye doonee président de la République du Sénégal ki nga xamante ni mooy euh, euh, moo ko jiital di Ousmane Sonko euh, doon casasier kon benn instant ñoom it am nañ droit wax li nga xamante ni mooy seen ak seen njël def Baye mi dafay bëgg démocratie bëgg fi loo xam ni bépp doomu aadama boo xam dafa am lu ko metti ci mim réew nga taxaw yëkkati say kàddu wax ko te dara du la ci fekk kon yaakaar naa ñoom MFDC aussi ci loolu lañ sukkandiku ba tamit def seen ay révélation ni carrément gouvernement bees bi nga xamante ni ñoo ñëw jël nguur gi nañu xool seen ay dossier loolu rek la mais keneen ku leen wax leneen waxul dëgg bref gars yi ba tey damay talax lax dama ana bàyyi yaa xam bàyyi yaa xam mbay <laughs> bàyyi yaa xam bàyyi yaa xam na nga def ak dama ni bàyyi yaa xam mbay anamu bàyyi yaa xam mbay daa génn réew mi ni ci gratuite non ci gratuite ci gratuite yaa xam mbay takk na jóg dem na yoonam ku moom xar mi nga bàyyi buum gi ci yenn raison yaa xam mbay foo jëm sa employé yi kaay fay leen ñi ngi jooy sa employé yi ñëwal nga fay leen yaa xam ñi ngi jooy ñëwal fay leen bala maa woo Cissé Lo damay woo Cissé Lo de mu rooj <laughs> Cissé dama koy woo mu ñëw roojal la Cissé ma moom mën na kànja mën na maafe lii lépp Cissé waxoon nañu ko yaa xam mbaye ngi noonu Bassirou Diomaye Faye jël na nguur gi le 24 le 2 passation de service le 5 xawma le 6 yaa xam mbay génn génn dëkk bi daaw na tëj na entreprise ba roñ la fa nekkoon employé sax fayu leen yaa te man. bokk na ci bi ma gën a naqari mooy manque de projet et manque de vision. bi nga xamante ne moom la am incompétent rek. soleil ñàkkul ay tête pensante. aywa soleil ñàkkul ay nit ñu mën a réfléchir. ñu mën a teg ay projet ay ay mu ngi leen mu ngi leen teg fii au frigo mu ngi leen teg au frigo. combien jël jël ay larbeem yu liggéey. ñaata dossier ñoo nekk ci bureau yoo xamante ne ay projet la ñu ko tegal. parce que bëggul kër gi. il n'est pas le soleil. bëggul kër gi amul benn jéego. bëggul kër gi amul kenn wax rek benn jéego boo xam ne da koo teg. lu dul lu dul yaa xam mbaa yaa xam de tëj na jant ba rek mbaa yaa xam de tëj na naaj wa <laughs> tëj na soleil de <laughs> yaa xam dem na yoonam yaa xam foo mën a nekk di nga ñëw yow foo mën a nekk naa la jëli yow mbaa yaa xam mbay ñëwal nga rek le dossier bi jant bii nga tëj xaw ma naaj wi kaay tijji ko fay employé seeni i seen i seen xaalis ak seeni i salaire tëj na soleil dem na yoonam du yoon dégg nga employé noonu nee na ko il incompétent amuñu benn xam-xam amuñu benn xam-xam làmmiñ wu rëy la ñu yor ak di yàq deru doomu aadama yi voilà la voilà lay conséquence takk na jóg dem na yoonam bàyyi yaa xam dem na takk na avis de réception bàyyi yaa xam koo gis fenn woo ma wax ma ko dama ne bàyyi yaa xam koo gis fenn woo wax ma ko man xëri du ma nittil waaye lu mu yëg mu siiw ruq Sénégal yeeg bitim réew foo ci nen nan la jëli non di nga leeral focusons-nous encore une fois les amis <laughs>